ak El Hadj Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yéen kaay nga xam ne rek moom lañu xëyandoo ñu daal di koy door ak l'évidence yéen kaay gi duñu xamal lépp loo xam ne rek jëm ne ci ndax leen koo gàntal na ci wàllu ko saytu ci lu jëm ci wàllu ko élection yeeg yu ni mel la bëggoon dañu leen koo gàntal waaye tamit mu soxal lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu ko joyeen yi nga xam ne bëggoon nañu ko caa andi ak itam recours ba lépp kay la leen gàntal tax na jamono ji maire ba futu la def njàgg ci ko politique jàpp ne nag loole du dëgg du yoon yoon may na leen ngir nak ñu àndi lu jëm ci wàllu ko joyandi ci nii kay mbir yi kay dafa jaxasoo fi nga xam ne rek moom moo di yëwee askan moom moo di baax lu lu mel ne ko Déthié 34 journaliste yëpp daanaka yow mi nag yaa ko déposé tey nag am na ay vidéo lépp dina leer yàlla ma yàlla àtteeg yow yéene kaay gi duñu xamal ne jamono ji kay duñu xamal ne moom Khalifa Babacar Sall kay diggante ma ko Macky Sall ña ngi cay am na ay nitam yoo xam ne njiitu mi Macky Sall investir na leen yéene kaay gi duñu xamal ne ndax kay liste Yewwi bi ci Dakar jafe-jafe yi ci am ndax moom amu ca wàll Vox Populi nañu kay jamono ji Déthié ak Barthélémy yéene kaay xamal ne Khalifa Ababacar kay ëllëgëm ci wàllu ko politique ak jafe-jafe yi nga xam ne rek joon di listu bi ak yu ni mel les rek moom di Tahirou Sarr ci lu jëm ci wàllu googu yi kay dafa mel wa ñu daaneel ko les échos yéene kaay mu ñu xamal xibaar bu doy waar yéene kaay gi du xamal ne benn policier kay moo doon agressé benn commerçant ci Daaru Xuddoos du samay kàddu nag les échos yéene ko bind Ousseynou Ndiaye ak El Hadj Ousseynou Ndiaye